أيها الإخوة المستمعون الأكارم لإذاعة كبار اف ام داخل الوطن وخارجه أتصرف بالتوجه إليكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راجيا المولى عز وجل على أن تكونوا وتدوموا على أحسن حال وأنعم بال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 di leen ñaanal jàmm ak fu ngeen mën a ne ci biir réew mi ak biti réew mi di leen ñaanal yokkute ci zahir ak batin tey nag sunu émission dañ koy sof ci émission bu yàgg buñ tàmbali woon ba agsi woon ci sunu baay aadama alayhi salaatu wassalaam jaar gim jaaroon aljanna mook sunu yaay xawaa alayhi wassalaam ak euh, nax ga nga xam ne iblis allahin naxoon na leen ko ba defloo leen bàkkaar muy baatub bàkkaar waxoon nañ fii ne benn bàkkaar boobu ñu def ca la suñ borom subhanahu wa taala e génnee ca aljanna ba defoon nañ ci ay détails tey nag dañuy ñëwaat ci baatu bàkkaar boobu mu mel ni mooy benn mbir bu suñ borom subhanahu wa taala bëggoon a xamal sunu ñaari wayjur yooyu di aadama ak xawa alayhim assalaam ngir moytuloo leen ko mhm. bàkkaar walla nga ne mooy yàlla mbokki jullit ñi dafa lënkaloo ak ay daan daan yooyu nag ay daan yu xeetu la yu limu la am na ca daan yoo xam ne sharia moo la koy teg ne lii boo ko defee ma teg la lii waaye am na ca yeneen yoo xam ne dogalu borom bi tabaaraka wa taala ca la aju mooy dogal ci dogalam ne jaam bi bu defee lii walla jaam ñi buñ defee lii ma teg leen lii bàkkaar nag mën naa amee ci xol mën naa amee ci ay cër léegoo léegi mu boole xol ya ak cër ya bu ko defee kon bugël yooyu nga xam ne moom la suñ borom subhanahu wa di teg ci bàkkaar muy ay daan yenn ya mën naa amee fii ci àdduna yenn ya mën naa amee ci barsax gannaaw faatu yenn ya mën na xaar doom aadama bi ba ca bis bañ koy dekkal mu wuy ji boromam subhanahu wa kon daal nga gis ne bàkkaar barab yi muy soqee ko ci doomu aadama bëri na mën na soqee ko ci làmmiñ mën na soqee ko ci xol mën na soqee ko ci xelaat bu ñaaw ak i pexe yu bon mën na soqee ko ci ay bëgg-bëgg yu baaxut ay yéene yu rafetut mën na soqee ko itam ci ay cër sa loxo sa tànk mbaa yeneen i cër ah, daan ya nga xam ne nag moom la ci suñ borom di teg moom dogal na ko te wéyal na ko dara mënu koo delloo gannaaw bi maanaa dogal na ne bàkkaar bu nekk lii laa ci àtte ci sharia ca coobareem mu dellu waxaat ne lii laa ci àtte ci samay dogal Mm-hmm. nit nag mën naa dem ba am xelam jaxasoo mu tuutal bàkkaar ah, ci ñàkk yëg fekk nag xel maa jaxasoo bi maanaa xel maa sellatut xel ma moo rafetatut tax muy def bàkkaar di ko suufeel di ko doyadal bu boobaa dañuy jàpp rek nekkoo ko dafa dafay niroog ko màndi ak kuy nelaw ah, jamono bi muy màndi ak jamono bi muy nelaw àndul ak sago àndul ak xel doomu aadama it mën naa dem ci dundam ba tollu foofu ba yaakaar ne la muy def ci bàkkaar yàlla du ko ca topp dara mhm. waaye mbokk yi dañu bëgg rek ñu xam ne bàkkaar ni mu mel ak daan ya ca suñ borom teg mu ngi mel ni sawara ak ni mu mel ak lakk mu la wóoree ne sawara moom lakk rek lay def noonu itam ni la bàkkaar mel ay mbugal rekk lay jur ak nim la wóoree ne cër bi boo ko dammee mu dammu ak nim la wéree ne ci doomu aadama boo ko naqee ci ndox mu nuur ak nim la wéree ne itam yaram boo ca solee poson mu yàq ko noonu na la la war a wéree ne bàkkaar itam noonu la taqoo ak daane yàlla yooyu ak mbugali borom boobu tabaraka wa taala moo tax bàkkaar gis nga ko ca aljanna la iblis njëkk a defee ay pexe rafetalal ko sunu ñaari way jur yooyu di aadama alayhi salaam ak hawa alayhim salaam fexe ba dugal leen ca digleen ca sax nag ay dig wan leen ne garab gee leen seen borom di tere moom la ñuy tuddee sajaratul xuldi moom la ñuy tuddee itam mulkin laa yabla maanaam mooy garab goo xam ne ku ca mos dangay ngay béel dootoo dee te gis nga doom aadama dafa bëgg dund ca la ko jaaree nax ko jaare ko it ci nguur ne ko nguur la goo xam ne dootul ràpp dootul jeex nax na ko ba yooya jur ci moom ay bëgg-bëgg bëgg-bëgg yooya yóbbee ko mu laal garab ga suñ borom toftal ca laal googa mu laal garab ga yam ca toftal naawal yére ya génnee ko aljanna bi maanaa génnee ko ci barab boo xam ne barabu xéewal la woon ak yërmande yére yu naaw nag la muy tegtale mooy bekkoor ñu ne woon ca gannaaw loolu stage la boo xam ne suñ baay dama jaar na ca loolu dañ ko répété waat rek waaye tey dañoo bëgg a ñëw nag wane bàkkaar yi muy jur yi muy jur nag bëri na lool xajul ci benn émission xajul ci ñaari émission waaye bëgg nañ koo topp benn par benn insha allah bu boobaa yow doomu aadama bi nga xam ne foogoon nga ne war ngaa mën a def bàkkaar te dara du la ca fekk soo xamee bàkkaar ak li muy jur da nga commencé di ko moytu su boobaa it yow doomu aadama bi nga xam ne yaakaaroon nga ne boo defee bàkkaar beneen doomu aadama ni yow am na capacité ñëw faral la ko boo xamee ajuwaayu bàkkaar yooyu conséquences yi muy jur da nga xam ne ka lay dig ne la maa la koy faral nar na laa def yàqkatub àdduna bi maanaa def na la ngay jëmm joo xam ne àdduna mën naa yàqoo ci yow doomu aadama yi ngay dundal mën nañoo toggoo lor yu bari ci yow moo tax bàkkaar kenn du ko xam di ko ñemeloo aw nit ngeen jàngee histoire yu yonentu yëpp salawaatullahi wa salaamu alayhim ajmain du ngeen mos a gis fu ab yonentu taxawee di tuutal bàkkaar di ci xirtal jaam ya baa fu taxawee naan leen lu ngeen ci def ma gàddu ko du ngeen ko ma a gis ci histoire u anbiya yi muy ñu suñ boroom daan yónni di jëmmi leer ya ndax bàkkaar bu fekkee ne conséquences yi cay juddoo ba ci jiitu mooy dalay xañ xam-xam te xam-xam dig leer suñ boroom di ko sànni ci xolu jaamam yi ko soob bàkkaar dafa nekk moom itam ak lëndëm guy ñëw di fay leer googu leer googu ci biir xol la nekk mooy tax xol bi xàmmee moom la bàkkaar di ñëw xañ la leeru xam-xam def fa lëndëmug réer kon ku lay ñemeloo bàkkaar mu ngi taxaw pour fatt bunti xam-xam yi ci yow fatt leerug yàlla subhanahu wa taala ee ci bunt yi nga xam ne fa la waroon a jaaree pour nga jot ca waaye itam mu ngi lay yiir mu ngi dox sa digganteek rootuwaayu njub yi ndax xam-xam mooy teen bi nga xam ne ci la ñuy rootee njubum borom bi tabaraka wa moom xam-xam moomu nag dig leer di teen bi nga xam ne ca la ñuy rootee njubum borom bi tabaraka wa taala doomu aadama war cee defaroo jubee ca bakkaar dala koy xañ boo dee kenn mu xañ la ko bu ngeen dee ñaarit mu xañ leen ko moo tax ali ibnu xashram rahimahullahu tabaraka wa taala nee na saaltu wakian an dawa il xifzi ñëwoon naa ci benn borom xam-xam bu mag buñ dee tuddee wakiya ma tawat ko de ko man de sama xol bi daal mënatula jàpp dara ci xam-xam mu tontu ko ne ko bàyyil mooy yàlla bi maanaa teqalikoo la ki bàkkaar mhm. saaltu wakian su a xifzi fa arshadani ila tarkil maasi qaala bi ann haza al ilma nuurun wa nuurullahi laa yuhda li aasi nee na laaj na wakiya ne ko sama mokkal dafa des baaxatut mu ne ko bàyyil mooy yàlla ndax yee xam-xam bii nga bëgg a mokkal ak leer la leer googu nag dee su ko jox mukk mooy katub yàlla mm-hmm. Euh, nee ñu imaam malik rahimahullahu tabaraka wa taala xool na kenn ci ay taalu taalubeem setantal ay mbiram muy am alimaam shafii rahimahullahu tabaraka wa xool ko xool ko ba ca kanam mu yéem ko ci xelam mu sell mim yor ndax lu dégg rek mokkal na ko te da koy dégg maanaam da koy mokkal boole koo dégg dégg gi nag jubluwuñ ci déggu nopp waaye mooy déggu xol ba ko xoolee gis ci moom màndargay mokkal yooyu ak wëttu bu rafet ak dégg gu rafet la ko wax ne ko inni ara ara anna allaha qad alqa ala qalbika nuuran fala tutfihu bi zulmati lmaasiya ne ko man day gis naa ne yow imaam Shafii am na lu suñ borom def ci sa xol bi mu dig leer kon nag góor góorgóorlu moytu mooy yàlla bul ko fayee mukk lëndëmug mooy yàlla soo ko bul ko fayee mooy yàlla kon ki lay ñemeloo bàkkaar mu ngi bëgg a fay làmp ak leeru njub googu di leeru xam-xam boobu ci sa biir xol bi te bu fa dàqoo rek ak réer a fay des ak lëndëm lëndëm ga nag day daal di wàcc ci cëri doomu aadama ya yàq ko moo tax gis nga seytaane dafa bëgg lool nit ki di def bàkkaar ndax dafa bëgg sànk nit ki te xam na ne yoon wi gën a gaaw ci sànkute mooy yoonu def bàkkaar mbaa wax bàkkaar mbaa xelaat bàkkaar mhm. ah, daxaak rahimahullahu tabaraka wa taala daan na wax ne maa naalamu ahadan xafida alqurana thumma nasiyahu illa bi dënb ne man day gis naa ne maag ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon jamono gisoon nañ ne mokkal alquran dem ba ca jëmmi jamono nga fàtte ko bi maanaa fëtt ko bàkkaar dong nga koy waral su waxaan lii daan na ca teg ne wa ma asaabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kathir lu leen dal ci musiba te benn musiba rawut mokkal alquran fàtte ko surtout shura kon mbokki jullit ñi benn ngoog ci yi nga xam ne bàkkaar da koy jural doomu aadama yi moo tax nooni doomu aadama yi nga xam ne dañoo bëgg doomu aadama dugg ci cërub seetaan jamono bu nekk dañuy taaral ak mooy yàlla ci seen kanam ndax xam nañ ne mooy bunt bi gën a gaaw ci sànq doom aadama xañ ko leeru yàlla subhanahu wa ñaareel bi bàkkaar dafay indi wéetaayu xol mm-hmm. bu fekkee ne nit ki mu ngiy def ay bàkkaar day dem ba jëmmi jamono bàkkaar yooyu jeexital digganteem ak boromam waaye it day jeexital digganteem ak jaami yàlla yu baax yi rawatina nag su fekkente ne jaami yàlla yu baax yooyu ak njabootam dañ caa bokk day daal di commencé di yëg tumuraanke ak wéetaay ndax dootul mën a wéttalikoo mbaax dootul mën a wét wéttalikoo ku baax ak ñu baax ña saa yu gisee ñu baax ñi day commencé di yëg complexe yëg ak tumuranke ci biiram loolu bokk na ci li nga xam ne bàkkaar da koy jural doomu aadama mbokk yi xeetu mooy yàlla yooyu di bakkaar yi loo ca mën a amee ci bànneex buñ la joxoon bànneexi àdduna yépp tem nar laa xañ leeru yàlla gee ñu waxoon dellu la xañ euh, wéttali ko lu baax ak ñu baax ñi ak seeni jotaay danga xam ne kon bàkkaar jaru ko te ku la gën a mën a def bàkkaar gën a yëg ak tumuranke ak complexe ci kanam gaa gaa yu baax ya bu ca sa soxna bokkee da mujj am complexe ci kanamam bu ca doom bokkee da ngay mujj am complexe ci kanamam complexe boobu nu muy def ci yow nag nga di ko yëg sa digganteeg mbaax ak gaa yu baax yi moom itam bunt la boo xam ne seytaane da ciy jaaree ci yow ba nga far ca sax mën a doxee noonoo mbag di gën a noonoo mbaax ak gaa yu baax yi bu ko defee kon loolu meññentum garabug mooy yàlla la te noonu ngay amee complexe ci sa kanam njaboot yu baax yi ah, maazallah noonu ngay soree sa borom te lañ ci yàlla musal waaw ndax topp yàlla day waral jege yàlla subhanahu wa taala noo gën a toppee yàlla jege ko waaye it nag mooy yàlla day waral sori borom bi tabaaraka wa taala noo gën a gée nuuree ci géeju bàkkaar gën a sori sa borom foofu it ñu taxawaat muy point ñaareel bi ndax mbokk yi ku la bëgg yow nit dana la taaralal mooy yàlla bi maanaa dana la taaralal sori yàlla subhanahu wa sori mbaax sori jub sori waay gaa yu baax ya xam nga ne loolu de lépp lu la koy sababal ka la koy ñemeloo sab noonu la mhm. lépp lu la koy sababal ka la ñemeloo ba la ci jox sañ-sañ la ah ñetteel bi ci yi nga xam ne bàkkaar da koy jural doomu aadama gis nga iblis moo tax bàkkaar rek la bëgg ci ñun dana am yeneen wax yu sew yuñ ci wax ca kanam incha allah wax yu sew ruuj yoo xam ne neexut a gis li tax àdduna mel nii mu mel tey buñ ci àggee rek ba ba ñori ko day daal di nekk yu dijj yu nit mën a gis nag naa ndeke kon lii moo tax àdduna bindoo nii mu bindoo tey ñu ne it bàkkaar dafay xañ nit ci ñetteelu yoon bi qillatu tawfiq wa taasurul umuur dafay waral tawfiq doomu aadama bi ñàkk ko day waral it doomu aadama bi di dund ci ay xat-xat ak i jafe-jafe mbir moo jublu rekk fekk mu tëju bàkkaar da koy waral waaw ndax xamoon nañ ne euh, topp yàlla subhaanahu wa taala day waral euh, yërale xat-xat bu ñëw rek suñ borom daal di koy soppi ab buntu boo xam ne dala cay doxee ubbee la kon topp yàlla day ubbi buntu yi di joxe tawfiix ah topp yàlla subhaanahu wa taala day teggi ay jafe-jafe bàkkaar nag day tëj bunt yi di yokk jafe-jafe moo tax iblis bu demee ba bëgg doomu aadama yi dund ci ay jafe-jafe ak i coono bokk na ci yam leen di taaralal mooy bàkkaar ndax sunub noon la bëggalut ñu at tawfiq bëggalut ñu itam at taysiir muy ak jàppandal lim ñu bëggal daal mooy bunt yu tëju ak i jafe-jafe mm-hmm. boo gisee nag ñu ne bàkkaar day tëj bunt yi waaw day tëj bunt euh, mbaax yi tëj bunti yomb yomb yi ubbil la nag mboolem bunti jafe-jafe yi bunti jafe-jafe yooyu nag saa yu ubbeekoo ci kanam nit ki bunti xay yi yëpp ubbeeku na ndax jafe-jafe bëri na lu muy dugal nit ci ay musiba maanaam ci ay xeeti xay bëri na koo xam ne ma nga nekk ci ak mooy yàlla nuur ca boo ko ne ma te nga bali mu ne jafe-jafey àdduna rekk ma ci dugal de te yëgul na jafe-jafey àdduna yooye ko ci dugal bàkkaar a ko waral kon mu ngi mel ni ma ngay gën a sóob boppam ci géejug ay jafe-jafe kon doomu aadama bi soo yëgatee jafe-jafe dawal nga fëgg buntu topp yàlla subhanahu wa taala mu teggil la jafe-jafe ya wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib bari na koo xam ne ma ngay jël alali doom aadama ya ci anamuk naxe walla ci anamuk ëldëb càcc gu métti ak koo xam ne ma ngay jaay boppam bu dee soxna la koo xam ne sax dem na ba àgg ci di jaay ñollu yooyu yëpp di ay bunti bàkkaar jafe-jafe moo ko yóbbee moo tax Iblis mi nga xam ne suñu toroxtaane rek la bëgg suñuy mbir yu jafe rek la bëgg bunti xay yi ubbeeku rek la bëgg rayante bi di bëri rek la bëgg criminalité bi di yokk rek la bëgg xeexoo bi de di yokk rek la bëgg iblis moomu mu ngi koy jaaree ci ñeme leeñu bàkkaar mhm. ndax bu sa digganteeg sa borom dogee e sa digganteeg mboolem xeeti musiba yi day daal di ubbeeku mhm. bu boobaa dangay gis ne da koy yóbbewaat beneen bunt muy lan waxanul badan bi maanaa ay wéradi ay wéradi ay feebar ah, rawatina nag wéradi xol xol ba day mujj feebar dootul am kattan lu muy résisté ci kanam bakkaar yi noona xol ba di feebaree néew doole ba dootu mën a résisté xeetu mooy yàlla gu nekk rek mu bànneex mën ko caa yenn dugal ko ca yaram wa it noonu lay mujj nag demee ba yëg faiblesse ndax bàkkaar yooyu da koy jural nag ay xeeti wéradi yaram xol ba dootu am résistance ci xeeti mooy yàlla yi yaram wa yit dootu mën a am résistance ci xeeti microbe yi nga xam ne ñoo koy gaar tey juddoo ci xeeti mooy yàlla yi ba tax gis ngeen ku la dàqa mooy yàlla ci xeeti xeeti mooy yàlla yi ngeen xam ku la ko gën a ñeme moo la gën a faible ci wàllu esprit wàllu esprit waaye moo la gën a faible ci wàllu yaramam ndax day dem ba yaram wa yàqu dootu bon dara day teel a tële teel a néew doole feebar yi songu ay cërëb bàyyikoo ko ci wàllu gune nga gis ne kon lottuk biir ak biti lay boole fa muy soxlaa doole fa la koy ñàkkee fa muy demee ba bànneex ba nga xam ne moo ko daan xirtal bànneex ba ko daan xirtal ci mooy yàlla daan ko xirtal ci bàkkaar fa muy demee ba soxla ko foofu la yégée ne ndeysaan yàgg a def bàkkaar far na ko ko xañ bu boole ñaari feebar feebaru ruux ak feebaru yaram lépp bàkkaar da koy jural doomu aadama ma ndax su fekkente ne bàkkaar nii lay def nit ci la koy taaralal yow nit xoolaat ko ci la koy ñemeloo di la ci may ay sañ-sañ bàyyiwaat ko xel de du sab soppe bàyyiwaat ko xel bu baax du sab soppe looloo tax nag ñu ne kon ah ci juróomeel bi bàkkaar dafay far barkeb dund barkeb dund kii def bàkkaar dundam day mujj ñàkk barke dana fi nekk di ànd ak jant bi muy so àndaat ak moom muy fenk bi maanaa di jàll guddi yi ak bëccëg yi waaye du ko jàllee ak dund bu baax da koy jàllee ak dund bu ñàkk solo dund bu tar dund bu métti dund bu ànd ak ay coono ndax barkeb dund la ko yàlla xañ moom lañ wax léegi ci gannaaw ne barkeb eh, ruuxu gu baax barkeb yaram wu baax yépp bay daal di teqalikook moom yaram wa dootu am barke ruuxu nag bu yàqoo yaram yàqu barkeb dund moom jeex na soo yoroon ni milliards it ya safatut la dara waaw boo yoroon ay milliards milliards ya safatut la dara ndax bàkkaar ñëw na xajamal bànneex ba nga waroon a am eh, ca milliards yooya moo tax sànkuteeg dund dëgg ngi juddoo ci bàkkaar bi nga xam ne dalay xañ barkeb dund kon mbokk yi ñooñu la suñ borom doon juñu ne am waatun xayru ahya mu ngi dund waaye dañoo dee ñu ngi dund de ci biir dund bi waaye dund ba daanaka dee la bakkaar da koy waral dee leen seetlu rekk nañuy seetlu ci dëkkandoor yi ku la ci gën a ñeme bakkaar moo lay gën a teel a ñàkk barkeb dund mën na koo ñàkk fekk daanaka ay atam demagul fenn waaye yaram wa ñàkk na barke ruuxu ga ñàkk na barke te it kat alal jo noonu lay ñàkkee barke bu doonoon nguur gu ko yàlla joxe noonu lay ñàkkee barke la alal di jural way texe ya ci ay xeetu ba ci ay xeeti yiw la ndeysaan di ca dimbale way néew doole ya way feebar ya ña nga xam ne ñu ngi bëgg seeni doom jàng te mënuñ leen a toppatoo way baax yi dangay gis ne ñoom seen alal yu barke ya seen dund bu barke ba moo tax dangay gis seen alal yi day dem ci ñooñu dem ci way néew doole yi dem ci feebar yi dem ci dimbali askan wi ci xeetu ndimbal bu ne nag waaye ña yàlla def ci ñoom wala boog sax man nañ ko tuddee ne ña nga xam ne ñoom sabab lu nañ bàkkaar ba yàlla xañ leen barkeb dund dañuy daal di ñàkk barkeb alal seen alal mën naa dem ci bépp xeetu caaxaan mën naa dem ci ay làmb ay ndaga ay sabar mën naa dem sax eh, ci encouragé yeneen xeeti mooy yàlla yoo xam ne neexu la tudd seen alal mën na caa dem waaye ndeysaan yàlla xañ na leen ñu mën a jël seen alal yooyu def ko ci daara yi def ko ci woy néew doole yi def ko ci way feebar yi def ko ci ay projet yoo xam ne yu productif lay doon pour société bi seen alal dafa ñàkk barke moo tax ci xeetu yàqute rek ci lañ koy dépassé amwaatun xayru ahyaa ñu ne it juróom-benneel bi bakkaar bi la jural yii nu tudd yépp day ñëwaat nag jural la leneen lu ñuy tuddee xirmaanu toa maanaam dana toog fee di xool ñay topp yàlla léegoo léeg mu wéet ci ruqam di leen ñee sax ndax xam na na ñee day fañ nekk lañ fañ nekk baax na lañ nekkee baax na waaye yàllaa ko koy xaj nag ndax lan Euh, dund bu lëndëm bi mu tànn moo tax suñ boroom dog digganteem ak topp yàlla subhanahu wa su amoon léegoo léeg sax ñeeta ci woy baax ya ba naan suba ma ànd ak ñoom balaa bët a set yéen a jooja far ca biir xol ba ak mooy yàlla gën a dëgër ci biir xol ba bu ko defee kon njub ci loxol yàlla la nekk topp yàlla ci loxol yàlla la nekk ku ko bëgg dangay ngay bëgg topp yàlla ci sa bi ba yàlla xam ko ci sa bi jàppale la ca mm-hmm. salmaan addaaraani rahimahullahu tabaraka wa taala daan na wax ne laa tafuutu ahadan salaatul jamaati illa bi danbin nee na boo gisee nit mënta am mënta julli ci jàkk yam dendal mënta am jullik mbooloo du ànd ak mbooloo ya di julli nee na dara xañu ko ko lu dut bàkkaar gis nga da ngay jàkkaarloog nit kër am benn jàkka bu nekk ca karce ba distance ba dox diggante kër waaja ak jàkka ja gën a sori lool distance bi dox sa diggante kër gi yow ak jàkka ji waaja di bàyyi ko fu sori di dugg ci jàkka ji ñu koy bindal tiyaabooy jeegooy dem yaag dikk ya waaye yow ma ko gën a jege sës ci jàkka ja doo fa mën a teg sa tànk waaw ah, dafa am lu koy waral bàkkaar la moo tax jeego yu am njëriñ yooyu e doo ko man kee nag topp yàlla gëm xir bëgg ko ci xolam moo tax suñ borom jàppandalal ko ko mhm. jàppandalal ko ko te kat ah, jamono boobu nga koy gis muy dox di dem ca jàkka ya di la romb yi dem ak a dikk yaa nga wér dara dalu la waaye doo yëg sax kësi googu nga nekkee bi maanaam doo yëg ñàkk gu metti googu nga nekkee pert gu métti googu nga nekkee ndax dara jaru ko bu dee ab boutique la danga gis sa morom moo xam ne boutique la yor bu julli jotee rek mu tëj ko dox dem ca jàkk ja bu dee ndomba tànku euh, euh, xam-xam la danga gis koo xam ne ma nga yor ndomba tànku gu toll ni sa gos ci xam-xam wala mu ëpp la ko sax te saa yuy ne allahu akbar rek mu dem ci jàkka ja teew mënoo ko lu la ko xañ lu la ko xañ war nga koo xoolaat ci sa bopp laaj ko sa bopp bàkkaar ci la Salmaan ad-Daaraani waxee woon wax jooju dafa tudd rek jullit mbooloo kenn la ci xeeti topp yi ne boo demee ba mënatoo ko xamal ne bàkkaara la ko xañ waaye bi maanaa lim ci jublu mooy xeeti topp yi yépp boo demee ba tële xeeti topp yàlla yi te gis say morom di ko def war ngaa gaaw nag jugaat ci sa bopp ndax kat la la ko xañ lu rëy la muy bàkkaar juróom-ñaareel bi mooy dalay solal mbubbum toroxte xasan albasri rahimahullahu tabaraka wa taala daan na wax ne aballahu illaa an yudilla man asaa nee na suñu borom moo lank bañ na moos teralee topp yàlla ku koy boy moo tax saa yoo xamante ne nit kaa ngi nuuraan ci mooy yàlla suñ borom da koy fayee mbubbum toroxtaane mhm. day dem ba di ko yëgal boppam mhm. kon mbokk yi noonu mu lay solalee mbubbum toroxtaande ci kanam jaami yàlla yi noonu la lay solalee mbubbum hawaan alallah mooy nekk juróom-ñetteel tomb bi xëy na ci lañuy ñuy tëjee waaye yii yëpp nag lu la koy sababal ndax baax na pour yow déet baaxut pour yow bu ko defee kon fi nuy tëjee mooy pour jox mbokki auditeurs yi rajo bi hawaanul muznibi ala allah euh, yàlla dalay doyadal xasanul basri daan na wax ne haanu ala allahi fa asawhu walaw azzu alayhi la asamahum Mhm. te nag wa in haana al abdu ala rabbihi lam yukrimhu ahad wa man yuhin illahu fama lahu min mukrim suratul hajj aaya samari taasar da daan wax ne boo gisee aw nit dem ba doyadi ci seeni societé ñu baax ña dootuñ leen defoo ah dafa fekk ne dañoo doyadi fa yàlla subhanahu wa taala yàlla ci yàlla musal ko defee nag ku doyadi fa yàlla ngir ay bàkkaar yu mu def kooka day daal di doye di ca kanam ñu baax ña ñu ne waaw ah léegoo léeg kat ñu gis nit nekk ci mooy yàlla gaa yi di ko màggal ñu ne waaw danay am de waaye màggaluñ ko ci xaqiiqa ña koy màggal ay maslaxa la ñuy wut ci ñoom ay intérêt waaye fekk na jamono booba ña nga leen xeeb lool ndax lañ xam ci ñoom ci ay xeeti mooy yàlla ña leen di màggal kon màggaluñ leen intérêt ba ñuy wut ca ñoom lañ bëgg lañ bëgg a jot loolu mën na nekk benn ci sabab yi tax nit di mooy yàlla nga gis aw nit di ko màggal intérêt képp la waaye ñu doyat lañ ci seen biir xol ya ñaareel bi mooy dañoo ña leen di màggal dañoo bokk ak ñoom ay bëgg-bëgg bi maanaam dañoo bokk cadre bu ñuy dund ñi bokk cadre bu mooy yàlla di ci dund dañuy màggalante ci seen biir otax nit bu demee bay dund mooy yàlla bu sañoon ñëpp nekk ñuy mooy yàlla ñooñu nag ci seen biir noo gën a moyee yàlla ñu gën laa fonk kon ña lay doyadal di la ñàkk a fonk du ñooñu nga bokkal silo bi maanaam du ñooñu nga bokkal saawo ak naanuwaay kon loolu mooy ñaareel bi ci sababu yi tax léegoo léeg nga gis ku doyadi ca gaayu yàlla ya waaye aw nit di leen màggal intérêt bee la mbaa bokk silo sii la ak bokk naanuwaay waay bii Ah, ñeenteel bi sax mën na koo doon muy lan ragal aw nit danañ la màggal ngir ragal la waaye fekk ya ña nga la yaa nga doya di lool ca seen biir xol ya ndax lan mooy yàlla gi ngay def ay ah, yooyu mën na koo sabab bu ko defee kon mbokk yi yii nu wax dong bu ko seytaane amee ci nit ki jaaree ko ci mooy yàlla dangay gis ne kon la seytaane doon wut ci nit ki daanaka am na lépp yii nu tudd rekk bay na ci muy juróom-ñetti yëf foofu nag laa doon wax nekkoon kon a ah, waaw bu demee nag ba jëmmi jamono ñu gis ay mbooloo takkutoo di daganal mooy yàlla di ko taaral di ca wootee di ca joxe ay man-man a ci sañ-sañ sax ay sañ-sañ bi maanaam kum neex na ko def ñu aar la waaw lu waral loolu ñu ne du lenn lu dul seytaan yow mii daganal mooy yàlla ci sa bopp mbaa nga koy daganalal sa morom di ca aar maanaam di ca sécuriser sa morom mi koy def wutal ko sécurité bu doy ci ne ko moyal yàlla na nga ko bëggee ma aar la ci ay texte ak i loi yëgal ne seytaan lay jëfandikoo ci waxtu woowu ngay jëfandikoo doole jooju yàlla jox la mbaa sañ-sañ boobu yàlla jox la nga koy jëfandikoo di naatal aka taaral ak mooy yàlla ci kanam jaami yàlla ya ba di leen xamal na sax mooy yàlla góo la neex defal am nga kaaraange ci def ko loolu saa yoo gisee àdduna àgg ca rek xamal na jamono boobu la tax àdduna àgg ca sew sew ba du lenn lu dul seytaane moo moome waaye ki jëm ci yàlla moom du mos a naatal ak mooy yàlla du ko mos a taaral du ca mos woote duñ ko ca mosa a sàkku ndigal ne dañ koo bëgg a def mu joxe ca ndigal mbokk yi foofu lañuy ñuy taxawloo ñaan borom bi tabaaraka wa taala yàlla yàlla dox suñu digganteeg lépp loo xam ne xeetu bakkaar la ak mooy yàlla nga xam ne moom la iblis bëgg doomu aadama di ca jaar te su ca jaaree rek daal di bokk ci sàppeem yàlla nañu yàlla musal ci xeeti mooy yàlla yooyu ak la nga xam ne moom lay jur kon ñu ubbi antenne bi incha allah. kon dafa mel ni mooy dernier auditeur dafa mel ni waxtu wi jeex na Seydou Diallo mu ngi koy junj moo nekkoon ci xarala gi ak sëñ Fafa ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan borom bi tabaraka wa mu jàmmal réew mi jàmmal réew yi jullit ñi. yi nga xam ne itam ay xew-xew la yu lu dox diggante réew yi jullit ñi yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala jeexal euh, lépp loo xam ne itam xeetu mooy yàlla gu ñuy ñeme loola ci kaw suuf loolee yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala na saxal. way feebar yàlla yàlla saafara leen way tukki yàlla nañ dellu si waat ak uh, màng e, yaakaar yi na ko suñ baram subhanahu wa taala sottal te barkeel ko ñu ngi leen tàgg foofu ba beneen ajjuma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.